loolu moom dañ ciy sant mairie mais day doon loo xam ni eh, lu nu yàgg jàmbat la lu nu yàgg a demandé la ndaxte boo xoolee Touba ñu naan la dix huit mille chevaux ñoo fi ne ay fas dix huit mille lan mbaam yi ñun la trente mille lan te benn mënu ci am benn identification boo xam ni lépp lu mën a xew ci saret boo mën a dugg doo xam foo koy wëree kon loolu dafa mel ni lu nu amal njariñ la loo xam ni ñun fu ñu ko déggee rek danoo war na daw ba daanu waruñu sax ñu di xaar ñu ne jox ay délai ak ndax day doon loo xam ni nit ki bu jubee di liggéey lépp lu koy aar lu ne rek daa war saa su jógee di ca dox di ci jëm lii nag moom daa doon loo xam ne lu nu bëgg la lu nu rafetlu la lu nu yàgg laaj la. njariñ bi benn bi mooy ki nga xam ne yàlla dogal na identifié na ab saretam identification bi jamono yi nuy commencé di war a wax régler tablo yi bi ñu ñëwee fii ci mairie ñu di ci waxtaan man maa ne leen woon. recensé nañ fi ay tableau séddale fi ay tableau benn mosu ci am njëriñ léegi nag pour ñu mën a am tableau yu am njëriñ da ngeen mën a am ab logiciel bu ngeen mën a dugal tableau yi kii jël ki moom tableau bi indi carte d'identité ak adresse am ak numéro téléphone am ñu door koo jox plaque kooku bu boobaa plaque am dana saa suñ ko soxlaa rek dan boo gisee numéro bi rek saa soo ko tapé ti lu mu mën di doon rek danga nga mën a xam ni kii moom moom plaque bi loolu njariñ la ci ki moom saret bi njariñ la ci client bi dugg ci bi bu ci waccee dara njariñ la ci ki nga xam ne dafa yor saret bi dem ba ci yoon yàlla dogal am ndogal am ci moom mu évanoué wala mu am jafe te mënuñoo xam kii kan la kon njariñ yi bari na lool mais nag li ëpp ci njariñ la day delluwaat ci borom saret bi ndax dana tax ki ci secteur bi te bokku ci ñu mën ko cee génne lii ñu commencé wax ci xale yi nga xam ne moom la Touba Mbacké gépp di jàmbat su boobaa dana deñ ndax moins de sept ans ñooy dawal fii ay saret léegi ak moins de huit ans mënuñu ci saret yi dara dara accident toujours parce que koo xam ne yow li nga yor loo ko dara sa soo ko yoree teg ko ci circulation bi yaa bëgg a créer ndax fi ñu toll bari na borom oto yoo xam ni li tax duñ def accident mooy saa suñ jubeeb saret gone yor ñu taxaw wala ñu xaar ba mu jàll ñu dem waaye ki nga xam ne gan la fi te xamut loolu mën naa def accident ci loolu waaye ñi dëkk ci Touba moom xam na ne gone gu yorub saret buñ ko jubee bàyyi ko fi mais bari na fi garas yoo xam ne nag moom ay gone nekkatu fa léegi li ëpp ci gone yi daanaka mooy saret yi nga xam ni bokkuñu fenn comme ni ñu ko waxee fii ci réunion bi ndax am na loo xam ne ñun sañuñu ko mën na noo sécuriser sunuy garas ba ay mag di ko dawal mais mënuñoo sécuriser mbedd mi ngir jëli fi gone yi warta dawal saret pexe yi moom day yomb ndax bu fekkee yow gaaraas nga yor immatriculé sa saret yëpp kenn ci dëkk bi te immatriculation yomb naa jàpp ñoom saa su police wàccee ci terrain bi rek mu saafarawu ndax ginnaaw tableau mooy tax ñu xam la boo amul tableau bi ki la gis rek lépp lu mu doon jiñaate mën na la koo jiñ kon ki jub dana dem wuti tableau wala mu dem cab gaarasam ñu wutal ko tableau loolu mooy li wér dégg nga li la wax lan ne la euh, duran li tàmbali tey ba le 30 juin képp ku fi am ku fi amul tableau le premier joué saa suñ dajeeg yow dina la immobiliser kon déjà képp ku ko dégg rek mën ngaa dem wuti tableau tableau bi nag boo dégg ñu la wax maire da ko subventionné parce que bu ko doon jaayee li muy jar dana cher mais da ko subventionné ba bàyyi borom sax ñu mën koo jël 1000 francs kon loolu ndimbal la ci ñun ndax xam nañ suñu néew doole mais nag loolu du tax du yaakaar ni ñun danoo war a toog rek jàpp suñu bopp lu ñu sant ñu ni mënuñu ko nit ki lu mu bon bon bu doon tableau d'immatriculation oto yaa koy wutali sa bopp te boo demee yaay def say frais door a wut dox say investigation kon loolu lépp bu amee ñu ngi ñuy dimbale te lépp lu ñuy def nag dañuy woo waxtaan ceeg ñun ba tënk ndax lii man conseil municipal la maay ki ku jëkk a relancé maay ki ko njëkk a demandé pour ñu identifier saret yi teg leen ci kaw yoon te loolu maire rek ko war a def plaque bi moom plaque bi moom du weesu nga indi sa carte d'identité soo indi sa carte d'identité ñu jël ko ak sa numéro téléphone ndax carte d'identité adresse da cay ne aussi nga wax garas bi ngay daw ndax nag bu fekkee da ngaa jóge ci garas boo ñëwee ñu identifier la dangay joxe sa carte d'identité joxe sa numéro téléphone joxe adresse su garas bi ngay daw ak adresse bu fa nga dëkk loolu lépp ñu dugal ko ci biir su boobaa lu man a xew ëllëg danga nga yomb a gis.